di ko nuyu bu baax di nuyu sunu préfet Mbacké di nuyu sunu sous-préfet Ndaam ak su préfet Kayal ñu ngi fi ñoom ñëpp di nuyu maire yi fi teew yëpp di maire Touba maire Kayal maire Touba Fall maire Misra maire Dalangaabu ñoom ñëpp yàlla dogal na fekk si nañ jataay bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu sëñ Yuusu mu taxawal waa Hizbut Tarqiyyah nuyu chef de yi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo teewe jataay bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax di jaajëfal nag monsieur le gouverneur bu baax ci taxawaay bi rafet bi nga xam ne eh, bi sëñ bi xoolee xam ne moom mooy kilifa région bi mu xam ko xam jikkoom xam taxawaayam mu am liggéey boo xam ne dafa dem ba dab ko soxla ko ci moom mu sant ko ko moom it mu sawar ci lool loolu mooy lan mooy xam ngeen ne titre foncier Touba lu yàgg la waaye xam ngeen ne dafa am ay extension yu bari dafa jëkk doon benn kilomètre gannaaw bi mu doon quatre kilomètres yu carré gannaaw bi mu yokku ba mooy bi nga xam ne tey moo fi nekk loolu nag léeg dafay am ginnaaw dafa yaatu te dafa am euh, dëkk yi dëkk ak Touba nekk ci doon wane gi Touba te soriwuñ ko lool dafay def léeg-léeg ñu yëngu ca te fekk ne mën naa doon loo xam ne sax jubluwuñu ko ca te yàlla daa dogal mu nekk loo xam ne waru ci war a dugg waaye loolu moom ci ak dëkk la nekk dëkk lu ne xaj na ci sëñ bi nag wax ne nañ ko waxal mu le gouverneur mu saytul ko ko ba mu àgg mu wax ko lu ci nekk ci biir te war cee nekk ak lu ci nekk te waru cee nekk mu xam ko monsieur le gouverneur wax naa léegi ne bi mu déggee loolu ci noppam ba nëgë ni noppaluwul bàyyiwul waxtu wane mi ngi ci def ci yitteem jëpp woote ci ay réunion yu bare bari bu ma juumul damay wax ne bii mooy ñeenteel bi yi réunion mu di ko ci woote ngir mbir moomu gën a mën a yéwén mu mel ne kon da koo def li wolof di wax bala ngay wax nan koo jëf da ngay wax ne nan koo wax ba noppi loolu moo war waraloon réunion yooyu yëpp ngir bëgg ñëpp seen xel dal bu baax euh, li nga xam ne moo ci nekk lépp lu ci aju ñëpp mu xam ko ñoom ñëpp ñu kenn ku ne génnee li nga xam ne moom nga ci xam Euh, ba tax ak ak nan lañ war a def ba li mu sëriñ bi bëgg mën a am loolu nag bay boo nga ne tey résultat waxtaan yooyu yëpp bay boo nga wax ne ñëw na tey ndax mboolem ñi ko teewee te nekk dëkk yoo xam ne ni ko sëriñ Abdou Lahad ko waxee léegi danaa ko waxaat ndax Sénégal gépp man koo dégg loolu mooy lan mooy Touba mooy kër gi mboolem dëkk yi nga xam ne di ko jaajëfal ci wax ji ci kàddu gu rafet googu Touba mooy kër gi mboolem dëkk yi ko wër ay wanag lañu ci moom nit nag ni muy fonk këram ni mu koy defaree wanag wa noonu la noonu lay defaree wanagam te wanag mooy li sa gannaaw kër da nga war caa denc mbaa nga bay ca mbaa nga def ca leneen loolu mooy sa wanag dëkk yooyu yëpp kon ay wanag lañu ci moom ndax ak njabootam ñoo fa nekk dëkk boo ci xam ne tey kilifa gafa nekk ajuwul ci moom itam bay boo nga ne ak njaboot ak nga fa goo xam ne kenn ëppalewu ko ca dëkk ba ak njaboot kon lépp gannaaw këram la te noonu la ko jàppee te kon moo ëtt bii rek la yemale waaye teewul nag ginnaaw dafa fekkoon ay kilifaam nekk fi sëñ Saaliwu ci loxo ci loxoom la yàlla mottalee woon liggéeyu titre foncier bii ñuy wax tey mu doon ko saytu it di yërëm mu di nekk bi mu fi jógee itam ñu ko fi wutu ñëpp Cheikh Mahamadou Lamine Cheikh Sidil Muxtaar ñoom ñëpp dañ koo saytu ba agsi fi tey moom nag moo tax moom mu ne saytu googee kat nañ leen ware noonu la ma ware kon may dinaa ko saytu saytu googee rek mooy la ci nekk waaye xam na ne ñi ci nekk ci biir ñëpp genn njaboot gi la ñenn nit ñi lañu kër léeg la bay boo nga ne kër la ak néeg yu ne ci biir kon loola mënta am benn jafe-jafe yàlla def taw feex nag li ma wax ne monsieur le gouverneur sa liggéey boobu yëpp ak sa réunion yi yëpp am na résultat tey mooy tey bi nga dajalee mboolem ñi nga xam ne ñoo ci bokk am ci wàll kàddu yi la tontu yëpp kàddu yu rafet la kàddu yu favorable la yoo xam ne defe naa ne dal na xelum mboolem ñi ko fekkee te dégg wax ci muy kàddu yu rafet yoo xam ñoom ñëpp li ñu maase wax mooy sëriñ bi kat lu mu bëgg incha allahu kenn du ko xëccook moom xanaa lu dul xamut waaye lu nu ci xam incha allahu nam ko bëggee daañu ko doon def ba ci li nga xam ne domaine national la ak guñ ci waaye préfet dana su monsieur le dana ko saytu ni mu waree waaye ñoom ñëpp nangu nañ ne lu leen ci kilifa yi wax ñi nga xam ne ñooy technicien ñi war a dox dox yooyu yor loolu lu leen ci san daañu ko def kon réeroo amul waaye ñàkk waxtaan mën naa indi luy nidug réeroo kon tey ci réunion bi bi ñu noppee ñun ñëpp suñu xel dal na suñu xool sedd na bu baax kàddu yu rafet kàddu yu baax kàddu yu leer kàddu yu mbokk kàddu yu dëkkandoo kàddu yu taalibe yooyu rek yooyu rek moo feeñ kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne fekke nañ ko di jiital nag jaajëf jooju nag ci ki nga xam ne moom la moom moo moo moo jiite liggéey bi di monsieur le gouverneur di la sant bu baax ci doxit wi nga xam ne moom nga dox lii la la sa kii say kilifa euh, sant moom lañ yaakaar ci yow moo tax waaye defee ko mat sëkk ñi nga xam ne ñoo topp ci yow itam nga xam ne ñoo topp ci yow euh, di say surga muy préfet yeeg sous préfet yi maire yi ñoom itam yàlla def na tawfeex mboolem luñ ci war a dox dox nañ ko ñoom luñ ci war a wax wax nañ ko te kàddu gu jóg gën a rafet kàddu goo xam ne kàddu nga xam ne moo jàlloon kon ñu ngi leen di sant bu baax waaye lii nag lépp ci turu sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xaadir mi nga xam ne nag moom moo toogoon fii léegi te sëriñ bi eh, jox ko ndigal mu jiite liggéey bi nu ànd ko ak moom ñu ngi koy sant moom itam di ko jaajëfal di ko gërëm waaye ñu ngi gërëm ñëpp di balwaak ñëpp nag di ñaan yàlla itam lii benn jataay la dëgg la jataay bu dal xel la jataay bu rafet la waaye benn jataay la ci jataay yooyu ndax des na yeneen liggéey ci kanam te incha allah monsieur le gouverneur wax na ni ñu war a def yëpp mooy topp ko xool ko saytu ko bu baax nag ci ak tànk ak tànk ba mu daj bu ko defee li ci sëriñ bëgg xam lu ci nekk lu ci nekkul nag bu boobaa lay door a mën a am bu ko defee ñu noppi nag mm, leeral ko weexal ko tal donc jaar ci leneen incha allah loolu mooy li nga xam ne moom la ñu moom la ñu mm, doon def ñu ngi sant ñëpp di balwaaq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa leen di nuyuwaat bu baax di leen. ziara bu baax di rafetlu jotaay bi ni mu tëdde ginnaaw kon ba ma nuyoo Sëriñ Bass euh, mi nga xam ne moo fi teewaloon sëñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides yàlla na fi yàgg te wér toog nañ ubbi na jotaay bi bàyyi kàddoom sëñ Cerno mu daaneel kàddoom léegi ci li sëriñ bi bëgg ak niñ ko taxawee tey nekk na beneen daje euh, dolleeku ci daje yi daje ci Jurbel pour waxtaanee mbiru titre foncier Touba ndax loolu lañu sëñ bi sante woon ne nañ ko ci doxal ay jéego xam li ci biir xam li mu und xam fa mu yem ka ci nekk ka ci nekkul pour moytandiku ñu ci def ay def yoo xam ne mën naa xatal dëkk bi te loolu mu mën a ñàkk moo gën ci loolu lañu tàmbalee liggéey bi ànd ak ñëpp nag waaye tey beneen jéego bu ñu dox tey ndax dajiñ daje yëpp ñu ngi ko daje ci Jurbel tey ñu ñëw fii ci résidence Xaadimu Rasuul waaye ànd ak ñëpp ñi nga xam ne dañoo séq titre bi moo xam ñi ci biir muy maire Touba muy ñi ci biti muy maire yi sës commune yi sës ci Touba yëpp may rafetlu seen teewaay waaye rafetlu surtout kàddu yi ñu fi wax fu dëgg yàlla amul kenn ku ci ñoom ku ci indi ci indil benn jafe-jafe ñoom ñëpp nangul nañ sëriñ bi te loolu day yombal suñu liggéey daje bi nag muy daje bu am solo ñu boole ci ñëpp noonu ñu ko bëgg a wéyale ba beneen jéego bi ci topp beneen jéego bi ci topp nag dañuy nag topp nag titre bi ci boppam ànd ak ña ñu war àndal muy service technique yi wóor ko ba mu daj xam la ca ne xam fu borne ya féete loolu dinañ ko ànd ak ñi nga xam ne ñooy service technique ak ñi seq liggéey bi buñ ca jógee nag ñu yokkaat borne yi renforcer borne yi ndax gis nañ ne diggante borne ak borne cinq cent mètres la ñu jàpp nañ ne fii ñu dëkk bi toll ak ni mu mel war nañoo renforcer borne yi ba du am werante loolu dënk nañ ko service technique yi ko ànd ak ñoom seen Youssou bi jiite is bu tarxiya ak maire ak ni techniciens yi ñu gis génn ay mool yoo xam ne dañuy defar ay borne yu mucc ayib yoo xam ne dañ koy ñëw dolli ci li fi ne yokkaat dimension borne yi ci ëpp doole loolu dañuy bañ rek euh, ëllëg xam naa sax maire luñ ko def keneen bañ a yokk ci xar mi karaw maanaam lii jot am ay yàqu-yàqu wala ay njuumte di ci dugg ku nekk xam ne fu ñu la jox bu bokkee ci titre bi nga xam ne doo doo fa war a mën a def dara ndaxte Touba dafay soxla ay suuf pour def ay travaux am ay projet te gis nañ ne ñu bëri empiété nañ dugg nañ ci titre foncier Touba ñun nag suñu mission du dugal kenn wala génn kenn sëriñ bi daal li mu ñu sante mooy ñu xamal ka fan la toll fu mu yem ak ku ci nekk ku ci nekkul ñu xam ko li ci des nag moom kilifa la mbiram la moo cay jël ay décision jàpp ne daal noonu lañ ko tàmbalee ak ndem si àll euh, sëñ aatu jaañ yàlla ko yàlla xare àjjana sëñ yuusu ñëw euh, euh, wuutu ko waaye nama ko waxe woon sa tàmbali liggéey ba léegi moom mu ngi ci biir ànd ak moom bon boog loolu yombal na ñu bari te génn nañu ci ay ay cartographie bi ak ay plan yoo xam ne yu mucc ayib la yoo xam ne ku ci sukkandiku doo réer te yooyu daf ko ànd ak suñu ay service technique démb tey soog a ñëw kon boog loolu mooy way nii ñu àndee di ko topp noonu lañ koy toppe ba liggéey bi féete boor ñu yëkki lépp teg ci lokku sëñ Muntaxa Mbàkke nekk lii nga ñu sante woon mu ngi nii buñ ca jogee nag ñu dal di soobaat beneen liggéey boobu mooy diggante Euh, commune yi wër Touba ak Touba ndax commune bi dafa nekkaat yeneen limite loolu dafa am beneen service yu état taxawal lu ñu naan agence nationale d' aménagement du territoire mu ANAT ñooñu faw ñu soppi seen loxo mooy beneen pàcc bu ñu paree ci lii loolu sama xel mën na cee dal parce que ni ma dégg maire yi te liggéeyu ANAT day nekk loo xam ne waxtaan a koy jiitu kon mën naa wax ne li ñuy def nii sax dafay waajal liggéey boobu di ñëw te waa anat war see soob seen loxo kon boog sama xel dal na tey sama xel gën naa dal ci ëllëg bu ñu bëggee waxtaan ci domaine national bi te loolu lépp ak defar la rek ndax Touba bu jëmee kanam ñi mu sësal ñëpp dañuy jëm kanam maire wax na ko léegi euh, te àddina da nga yaatal te gis ngeen ne Touba dëkk bu am doole la ñun ñii nga xam ne nag ñu nga fi yàlla teg ñoo gën a war a dooleel tubaa gën ko xaalal ay projet ak foo xam ne mën na fa def ay jumtuwaay yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla gouvernement bi bu bëggee liggéey ana am fu mu leen di jàppale sëñ bi bu amee ay projet mën ko fee def ndaxte loolu yëpp ci suuf nga ko mën a def kon boog waxtaanee suuf Touba ak limiti Touba titre bi ak limiti Touba ak commune bi nekkan wax lan loo xam ne mënul woon ñàkk faw mu am waaye nag li ñu naan démarche participative lu yëpp dañ koy ànd ñun ñëpp dañuy ànd ci liggéey boobu ku ci nekk ñu boole la ku ñu ci war a boole boole la ci nga xam la ñuy def di ko fekke di ci joxe sa sa sa point de vue joxe sa xam-xam di ci wax parce que da ngeen teewal ay nit da ngeen ñu leen yaakaar yebal leen loolu moo waral boobu ba léegi euh, saa yi may woote rek dama ciy boole ñëpp ñoo xam ne bokk nañ ci parce que nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu waaye daal fi may daanee la mooy am naa yaakaar ci li ci des ndax ku toog si réunion bi dégg vraiment ni ñu waxtaane ba ñëpp xam fan lañ jëm am naa yaakaar ne li ci des yàlla mën cee defal sutura sëriñ bi xam ne ah la mu ñu ñaanoon tam doxal nañu ko ko te lépp intérêt taalibe yi la intérêt dëkk bi la Touba intérêt Sénégal la sax loolu daal mu nekkoon kàddu yi nga xam ne bëggoon naa ko ci saa di daaneel di jox rendez-vous ñëpp ñu nga xam ne war nañ cee bokk ci liggéey bi ci tegu mooy jéego ñu war a def muy reconnaissance terrain bi muy talaata le 2 mars ñu ñëw ànd ak euh, départ Mbacké gi dal di topp wër tiitit ba mu ba mu daj loolu mooy liggéey bi ci topp service yi en attendant ñu commencé defar borne yi pour maanaam jéego bi nga xam ne moo moo moo cay topp bala ñuy delluwaat ci sëñ bi teg lépp ci ci loxoom. ma leen di gën a ñaax bu baax euh, nga gën ci jàpp gën a yombal yàlla tàppe xoli ñuy gën a waxtaan di diisoo te xam ne loolu rek moo mën a tax dëkk bi jëm kanam waxtaan ak diisoo moo mën a tax Sénégal jëm kanam te yéen a ngi ci maa leen ciy gërëm bu baax di ñaan sëñ bi mu ñaanal réew mi bu baax mu ñaanaatal ñu bu baax mission boobu yàlla def ci jàmm maa ngi ko koy sàkk bu baax ci kanam ci di ko yóbbante nuyoo ci sëñ Koso ne ko ñu ngi sàkku ñaanam ah ñun suñu yéene lañu am mu ñaan yàlla yéene jooju euh, yàlla gërëm ko ba mu sotteeg jàmm ba ñëpp gis ne liñ doon def nii njariñu askan bi yëpp la wasalaamualeykum wa rahmatullah wa taala wa barakaatu